maa ngi tudd Cheikh Mouhamed lamin gay jëmmooy jëmmooy nag boo ko déggee ab dëkk la sama turandoo mooy seex boo xam ne suñ tubaab da ko seexaloon yebal ko jëmmooy mu nekk koo xam ne kii da koo dénkoon doomam ji jigéen ab taawam ñu koy sonn Fatja Mbàkke sëñ Modou Lamine Mouhamed Lamine Gaye jëmmooy moo ko yoroon yàlla dogal na it am caatam doon soxna Aminta Gaye mu joxoon ko suñ bu mag bi mu nekk ci njaarim ca barsàq kooku moo jur Modou Fallou gay Modou Fallou Gaye moo jur Cheikh Mor Absolo Gaye maay taaw Cheikh Mor Absolo Gaye loolu moo boole ci kër gi ma dib taalibe nag boo xam ne bii taalibe kër Sëñ Fallou laa tey nag ñoo ngi ci biir boqatu bi ñu nekk nag mooy boqatul Kamal lañ nekk tey ndax fi ñu nekk nii mooy fi nga xam ne fii mooy bunt bi ci yoonu murit mooy bunt bi ci ndam li mooy bunt bi ci victoire coloniale mooy suñu bunt ci lépp loo xam ne lii moo ñu sigil ci biir Afrique ak ci biir monde bi Cheikhul Khadim dafa nekk koo xam ne kii nit ñuul la nekk ci biir Afrique subsaharienne ab subsaharienne nekk juróom fukki continent ci biir continent bi nekk juróom fukki dëkk ak ñeent waaye dëkk yi ci nekk yépp nag ñu ni xawle na xeeb parce que boo waxee ñu ne économie mondiale li muy rëy rëy di loolu bi bari bari Afrique 3 pour cent sax am ko ci ci doole dañoo ndóol 3 pour cent sax amuñu ko ah te li ko waral boo koy seet 90 pour cent ci problème bi li ko waral mooy tubaab bi depuis 1414 1415 depuis 15e siècle ci fukkeelu xarnu ba ak juróom tubaab bi jóge na Europe ba nga déparé Portugal ñee nga déparé Hollande ñee nga déparé France ñee nga déparé Espagne ñee nga déparé Italie song nañu Afrique siddi ko dañ koo siddi nangu Afrique gépp nangu dëkk yëpp noot dëkk yëpp jàpp ñëpp def leen ay jaam jàpp ñëpp di dóor di yóbbu di jariñoo di jariñoo jigéen ñi di jariñoo góor ñi ci biir tool yi di jariñoo oor bi di jariñoo jamaa bi jël suñu pétrole jël suñu lépp dem te ña ngi ko commencé mille quatre cent et quelque quatorzième quinzième siècle jamonoy dox nit ñi nekk ci biir Afrique di dox ay buur di fi jaar ay kilifa di fi jaar ay boroom xam-xam di fi jaar ba ñu egg nag 1895 19e siècle 14e siècle ba 19e siècle juróomi xarnu juróomi téeméer at dox na fi Sëriñ Tuubaa soog a ñëw bi mu ñëwee tubaab bi nekk fii ci sow bi nekk diggante Ndar ak Ndakaaru nekk ci biir géej jaar la ay raayam foofu jëm biir Mali jëm biir Niger di nangu lu ñu yor di ko yóbbu ci dëkkam di ñu jariñoo Sëriñ Tuubaa bàyyi leen foofu moom jublu penku ñoom jublu soow moom mu génn sow jublu penku ci biir jublu penku gi li ko taxoon a jóg mooy lan wéetal suñu boroom jaamu yàlla ci lay dem ba sanc dëkk yooyu mel ni Mbàkke Kajoor dëkk yu mel ni Mbàkke Xewar dëkk yu mel ni Mbàkke Bawol dëkk yu mel ni Daaru Salaam dëkk yu mel ni Touba waaye dem ba dellu soir ci suufus maamam soo xam ne maamam maam aarama ko moomoon muy suufus maam muy suufus Jolof nekk le plus grand empire du Sénégal ëpp ci doole la Jolof parce que njaayeen ñoo fi ne njaageen njaay fi nekk ak Buurba Jolof ak Alburi ak mbooloom ak ñoom Sàmba ñoo moom Sénégal parce que Kayoor dafa dépendre ci jolof bawol dafa dépendre ci jolof saalum dafa dépendre ci jolof dañuy fay ay tribu at bu ne ñoom buur yooyu ñoom su ko mëndoo fii ñoom Lat Joor dañuy fay tribu Njaagaan Njaay ak Alburi parce que mooy seen patron moo cëpp doole tubaab bi topp ko diggante bi nag ba xam ne génn gis na gisatu ko mu gis ko mu dugg biir Mbàkke Baari mu ne kon dugg na ci ñi am doole kon dana dem préparer foofa guerre guerre sentam ñëw xeex ak man ko kon dina man parce que ki ëpp doole ci gars yi moo fa ne dafa dafa dafa réer rek suñu tubaab loolu tax koon a jóg moom sallallahu alayhi wa la xeeñtu ba gis lam yor malayka yi ko wër ak lu batrin di ko wër bu bëgg a bokk ca ñooña moo ko taxoon a jóg di liggéey ca la jóg di jaayante bëgg jëm ci liggéey bi liggéey suñu borom ñoom nag ñu defee ne ñoom jóg gi ñu jóg di ñëw ñoom ñoo ko war def prisonnier utiliser ko ndeke tam moom moo leen war a jariñoo ak seen gaal dem liggéey liggéeyam joxoñ bi da seeku geesu la tubaab baa ngi joxoñ seen tubaab seen tubaab la doon di geesu bëgg ko joxoñ dafa bëgg a moom dafa bëgg a dem dari siiwa dem loolu seen tubaab lañ wax nee moom góor gi boobu dari siiwa dem li mu bëgg rek mooy dem bi nga xam ne tubaab bi ñëw na jël ko nag fi nga ko jël see mooy barab bii kon nag foo ñu taxaw ci barab bii 1895 bi ñuy jël si Sëñ Tuubaa ci barab bii fan la fekk yoonu mu murit fan la fekk jamono ji fan la fekk Sénégal fan la fekk Sénégal fan la fekk difficulté yi c'est une période difficile nous sommes au début du 19e siècle 1895 boo ko tegaatee juróomi at mu nekk 19 mu nekk e siècle daal daal di mat nga war a commencé dugg sa 20e siècle ca catu 19e siècle ba ca la tubaab bi bëgg jël si sëñ bi parce que xam na ne war naa dem développer ci son industrie à Lille dans la sidérurgie à Toulon dans l'aviation à Paris dans les environs dans dans dans dans dans le rail dans les industries chimiques et partout à travers bëgg na ko développer kon bu mu développer ko foo mu dem Afrique jël la ñu am ci ay njariñ indi ko développer këram kon foofu lay ñëwee te bu ñëwee kon ka ko war a mën a gàllankoor nag mooy kay jàngal nit ñi def ñoom xam-xam boo xam ne bii danañu yeewu danañu xam addina ba kenn du la mën a noot kooku nag ñu war ko ci seen biir ñoom ñëpp gis mooy kenn kenn dong la ci ñoom Sëñ Tuubaa ñi ci des ñëpp ñu ngi jàngale ñi ci des ñëpp ñu ngi am xam-xam ñi ci des ñëpp ngi yeewu waaye ki nga xam ne kii xuloowul xeexul jamantewul deful coow waaye li muy def mi ngi koy def te ñëpp ñu màbb jëm ci kawam te kenn mu leen a téye waa Njaaréem màbb nañu waa Touba màbb nañu waa Dakar ko doon làgg sax màbb nañu léegi nag dem na ko dem na Conakry waa Conakry moom ba mu dellusiwaatee waa Conakry ñoo ñoo gën a nekk murit ci àddina fi ñu toll nii Grand Bassam ak Côte d'Ivoire kër a mag moom fa la a rëyee Gabon nag moom waxaale ma Gabon moom boo fa demee day mel ni maanaam Sëñ Tuubaa dafa jógee Tuubaa rek dugaat dugaat Gabon jàkka ja fa nag dëkk xam ci biir monde bi waxuma la Paris biir France waxuma la Milan biir Italie waxuma la Rome waxuma la Michigan waxuma la Detroit waxuma la Los Angeles waxuma la Rio de Janeiro dëkk yu mag yi xam ci biir àddina yëpp foo ci dem kër Sëñ Tuubaa yi la koy joxoñ fale la pale am na kër Sëriñ Tuubaa yi nekk biir Europe c' est des châteaux these are palaces kër gi président dëkk biir Amérique am na kër Sëriñ Tuubaa yi mel noonu biir Amérique kër gi mu dëkk ànd ak coupole ànd ak lépp nekk ci biir ay ay ay ñax jàmb yóbbu yi dox ci biir am na kër Sëriñ Tuubaa yi nekk nekk biir Amérique mel noonu nga dem Scandinavie boo demee Danemark même chose foo dem même chose kon li Sëriñ Tuubaa am ci teraanga nga xam ne mi ngi biir Mbàkke Baari nga xam ne amoon na ko tubaab bi defee ne na ko da koo ful Mbàkke Baari da koo fulaat kon Mbàkke Baari da jur ba jur ay kër ci biir àddina bi jur ba jur ay daara ci biir àddina ji daara ay taverni dégg ngeen ko c'est en France à Montpellier matagul un mois def naa fa ngandum conférence taverni moo dàq ci jumaa yi biir biir biir Montpellier daara Sëñ Tuubaa lañ fa jàngale bala ngaa bëgg mokkal xasida dëgg dëgg fi ñu toll nii doo ko jàngee Touba bu leen réer ku bëgg a mokkal xasida dëgg dëgg doo ko jàngee Touba doo ko jàngee Njaaréem demal Michigan neel cëpp Michigan di daa bëgg mokkal xasida bala ngay ñëw fii jombal gars yi fii sama xasida laa yor maa ngi nii damay duru son ba surtout robon jàngewu ma ko Sénégal jàngewu ma ko Touba jàngewu ma ko Njaarim Amérique ci New York laa ko jànge Sëñ Tuubaa am njàngalem dafa tasaaroo léegi ba dugg na foo ko nit ñu foogutoon foo ko tubaab xaar dugg dugg na fa ndax fa dugg mooy fan ku mel ni man jàng ba am entrée en sixième jàng ba am BFM jàng ba am bac S nekk major de promotion am bourse de l' jàngi juróom-ñaar at Moscou nekk ingénieur et docteur jóge fa ñëw dem Canada juróom-ñaar at nekk fa ingénieur docteur dellu États-Unis juróom-ñaar at ñëwaat muy ñaar fukki benn ngay jàng ci àll bi te bu ma dajeeg yow la ma lay jaay man du ma la jaay jàng la ma lay jaay man Sëriñ Tuubaa laa bëgg man man Sëriñ Tuubaa li ma bëgg bëgg loo man la ma jàngal xam naa ko waaye dafa ndaw la ma jàngal dafa tuuti la ma jàngal mooy nu ñu jariñoo àddina man Sëriñ Tuubaa damaa jàngal lu ñu jariñoo àddina waaye du ñu fonki nit Sëriñ Tuubaa nit la jàngale nit Tuubaa dafa jàngale àddina yem ci kese man koo jariñoo Sëñ Tuubaa jàngale jariñoo àddina bi mais ci biir nit ku teey nit ku yaru nit ku ami ami teggin nit ku xam àddina nit ku mën a liggéey nit ku mën a jaamu yàlla boole ñett xelm amal ibaada jaamu yàlla di liggéey am xam-xam fees dell jàpp njàmburam macha allah kooku moo tax ñu dem ba ñu génn njaarim génn ba génn Afrique du Sud romb Maroc romb fépp dem ba génn Afrique du dem ba génn Milan dem ba génn Michigan dem ba nekk Honolulu Hawaï ca capitale Honolulu Hawaï ca capital ba ca gannaaw Amérique ci biir océan Pacifique boo fa taxee fayet di nga dégg ku jàng ma fàttali bi sëriñ ban sëriñ nga mu nekk bi Sénégal bu kenn di jàng téeram ca biir Honolulu ca biir Hawaï dinaa lee Bahamas foofa nga xam diggante fii foofu ay vingt cinq mille kilomètres trente mille kilomètres la te fa ñu nekk ñoo fa gën a ñoo fa gën a yaru ñoom la fa gouverneur ba gën a fonk ñoom la fa président ba gën a fonk ñoo fa ëpp xaalis ñoo fa dàq liggéey ñoo fa gën a teey ñoom lañ fay consulter ñoom la ñuy waxal ndax duñu sàcc fi kenn duñ toon kenn dañ leen tarbiyé tarax leen dañoo fees dal ak xam dal ak yar. te loolu fii la déparé. daara jaa ngi nii. Mm-hmm. ku bëgg xam na nga ñëw xam ku bëggut a xam na nga ñëw xam fii mooy Mbàkke Baari fii du Touba du Njaareem du Daaru Muxti du Daaru Marnaan du Daaru Rahman fii mooy Mbàkke Baari mu baarak fii mooy barab bi Sëñ Touba jàngale lépp fii la Sëñ Touba déparé lépp fii la Sëñ Touba amee lépp fii la njariñ lépp nekk na fi ñëpp ñëw dañ ko fonk nañ ko taxaw dañ ko teeru jërëjëf jërëjëf